ñëw ci live bi pour waxtaan ci li jot a xew ci fan yi nga xam ne ci lañ jógee ko waaw ah, balaa loolu nag dañuy ah, jaale Sénégal yëpp ci accident bi nga xam ne am na fii ci Sall ci Kaffrine ah, tey ci côté fajar gi defe naa billaahi ba trente huit personnes ñàkk ci seen bakkan nekk xam metti la lu metti metti metti metti ñaari bis yu mbëkkante tey ñu nekk ci dëj bu mettee mette mette mette loo xam ne daal foo ko natt weesu na ko ci mettiwaay waaye sant yàlla rek comme yàlla moom moo sàkk jàm bi heure bi mu dogal ci lay dem rek ci lay dem waaye lépp nag man damay wax ne tëgg bool yi nañ leen ko moytu dama koy wax chaque jour nee naa leen nit ku leen bëggalut jàmm ci ku bëggul jàmm ci réew mi su diglee ay mbir war nañ koo moytu waaw parce que tëgg bool yëpp yenn yenn musiba yi moo koy indi ci réew mi tëgg bool yi nga xam ne Ousmane Sonko mu ngi leen koy digal moo indi musiba ci réew mi gaay yi waxtaanu tay bi nag dama bëgg a ñëw ci discours Ousmane Sonko France 24 ak la mu waxoon <laughs> na du ko def waaw mooy VAR bi bëgg nañ ci ñëw bëgg nañ waxtaan tamit ci Ahmed xalifa Niass mi nga xam ne euh, dégg ngeen ko ci tontu bi nga xam ne tontu na ko Baye Mbaye MC lépp bëgg nañ ci def ay jàngat pour indi ci ay leeral waaw fi ñuy tëjee nag mooy yéen ñëpp defe naa dégg ngeen. coow li nga xamne mo am ci rew mi ci troisième mandat deuxième mandat nangam ak nangam bëgg nañ ko tejé waxtaan ci tuuti parce que am nañ ci xalaat waaw gaay man dafa am lo xamne dama len ko yag di wax yeen sénégalais yi pour ngeen bayyi ci xel ta samay wax man dana guddé dé mais du fanaan mukk ci aduna barke rasoulallah xam ngeen Ousmane Sonko su ngeen ay jamono moom moo fi toogoon wax ne du bëggul tubaab ba bëri na sax ñu koy booyu ko topp naan waaw dafa bañ tubaab yi kii jëlee fi tubaab yi la bëgg nangam ak nangam dangeen koy dégg ci waxi dof yi nga xam ne ñoo ko topp moom moo taxaw mu wax ne lim bés bu naree wax ak tubaab yi maanaam tele tubaab yi su ñëwoon teg seeni caméra mu jug abal leen fa ndax bañ jim leen bañ su ngeen fàttalikoo aji saar France 24 dalal na ko fi ba fi France 24 dalee aji Rabi Sarr dégg ngeen coow li fi amoon France a nekk ci ginnaawam lu tax France 24 dalal aji saar parce que nangam ak nangam commencé di def ay manipulation te yéen xamoon ngeen ne France 24 su pree ci aji Sarr yow Ousmane Sonko yow lay dalal te yéen wax ngeen ne du ngeen mos a toog ci télé tubaab yi Ousmane Sonko moo ko wax ne du mosa toog ci télé tubaab yi du mos a jàkkaarloog télé tuba bi parce que beugul tuba bi ñom wa passif yëpp deugal lolu barki Demba Ndiaye la Ousmane Sonko waccion lekkat nako mom mi lon wax ne du mos a toog ak tubaab yi du mos a ci télé tuba bi du mos nangam ak nangam discours yu Macky Sall wara fi dem diko ko ci télé tuba bi mom Ousmane Sonko moko lon wax de léegi mom Ousmane Sonko mi lon wax ne Macky Sall discours yu mu Sénégal bàyyi fi journaliste Sénégal yi bàyyi fi télé Sénégal dem ba ca télé tubaab yi di ko fa defee moom Ousmane Sonko pourtant bàyyi na fi télé tubaab télé sénégalais yi bàyyi fi journaliste sénégalais yi te pourtant li mu may tubaab yi mayut ko journaliste sénégal yi Ousmane Sonko fan ngeen mos a gisee mu def conférence de presse dajale journaliste yëpp pour journaliste yi ko laaj muy tontu amut te pourtant may na ko tubaab yi kon tubaab yi la gën a gëm. ci yeen journaliste sénégalais Kun tuba bi la gëna a ci yeen ñi nga xamne yeen journaliste sénégalais nañ leen waxante dëgg rek ta def jangat xam nga man xam nga man damay bañ ñi indi fi ay wax yo xamne diko di ak ki suko su dagan na ki suko ko aram na comme nu ngeen mëna taxawé di sikkel président Macky Sall ci wax ji mi wax ci télé tuba bi di bàyyi journaliste sénégalais Ousmane Sonko suko wax leen ko waye nak journaliste sénégalais ñu ñàkk fayda lañ mun naa wax sax ñu ñàkk jom lañu ndax ñàkk jom ak fayda weesuwul yéen journaliste Sénégal yi ngeen yor seen i caméra ki seen i micro di lambar lambar yi Ousmane Sonko di def ay point de presse ngeen ñëw rangloo mel ni ay yalwaankat ah tàllal seen i micro di mel ni ay faqiir ah te ngeen am xalaat am question yu ngeen ko war a laaj muy def ay point de presse am su pere na wasalaam tëj dem yoonam chaque jour na ngeen daw topp ci ginnaawam. Bam mu bu bëgg wax fulam ak faydam dafa dem ba France 24 ci télé nasaran ci tok fa ñi laaj ko fa question yo xamné da danaa ñëw ci question yi de question yañ ko fa laaj la bëgg ngeen dégg bu baax baax lañ fa laaj Ousmane Sonko yeen sénégalais Ousmane Sonko def na fi conférence de presse point de presse mune bam démé ci Ziz Maham Diallo gaay ma ngi jégalu dama soñ nag mune bam démé ci Ziz Maham Diallo mom Ousmane Sonko mo wax dé mune Maham Diallo daf ko laaj ndax. da nga def sa ADN mun ne ko bu ma ko laajati bu ma ko waxati tontu wu ci mais ba ko tubaab yi laajee daf ci tontu dañ leen waxante dëgg ba ko tubaab yi laajee ci lëm li jëm ci problème mu Adji Sarr dafa tontu lépp luñ ko laaj ci ci viol bi daf cee tontu ba mu leer nañ te fii nii amul benn journaliste ku ma mën a génneel vidéo benn journaliste boo xam ne toog naa ak Ousmane Sonko di ko poser question ci lu jëm ci wàllu viol aji Sarr amul. kon yéen journaliste yi saaga ndey leen di ndey moo tax nangu leen a laaj loolu Ousmane Sonko te pourtant am na benn journaliste bu fi mos a dalal Ousmane Sonko muy wal fajari mais wax nañ ba jeex mais problème aji saar bi dugguñ ci laajuñ ko ci dara te journaliste français yi laaj nañ ko lépp loo xam ne jëm na ci dossier viol Adji Sarr bi te daf ci tontu kon daf ci tontu di mel ne ab xaru bali bali nag Ousmane Sonko ci kanam France 24 di mel ni ab xaru bali bali mucc mucc. kooku ngeen bëgg a wax ne moo fiy jëlee français yi kooku ngeen bëgg a wax ne moo fi jëlee tubaab yi kooku ngeen ne dafa bañ tubaab <laughs> yéen bàyyi leen di nax seen bopp booy deuxième question bi nag li ma ci gën a naqadi mooy mu jël photo Thomas Sankara di dendale boppam ak Thomas Sankara gars yi gis nga manipulation baaxul yàlla na ñuy yàlla musal ci nit kuy def ay manipulation mais Thomas Sankara laa leen bëgg a waxal. mu ngeen di jël di ko méngaleeg Ousmane Sonko Thomas Sankara mos ngeen a seetaan vaar vaar ko vaar dama leen indil na leen Thomas Sankara ak Sonko nekkuñu benn ba muy jël na bàyyi photo Thomas Sankara yi muy jël di ko teg ci peggam Thomas Sankara mos ngeen dégg mu fen Thomas Sankara ba mu dalee xeex tubaab bi mos ngeen dégg mu dellu ci ginnaaw benn millimètre Thomas Sankara mos ngeen ko gis muy tëgg ay bool Thomas Sankara mos ngeen gis muy manipuler askanam. ah di dal sen kaw di ray ay nit di yebal ay nit ñi dal ci kaw ay nit mos ngeen gis Thomas Sankara def lolu ah kon li nekk ci Thomas Sankara nekkul ci Ousmane Sonko bu leen ñi fonto Thomas Sankara fam deggon tankam Ousmane Sonko deggu fa tankam varu Thomas Sankara wu duggu leen réseaux sociaux yi dugg leen fu leen neex du ngeen mësa génné varu Thomas Sankara te Ousmane Sonko moy politicien bu ëpp var ci politicien wu sénégalais barké alcorane karim muy politicien bu ëpp man Ousmane ko man su ma neexee lépp lu wax ma vaar ko lépp lum wax balaa su ko xëyee wax balaa su ko xëyee wax dix heures balaa midi man mun naa ko génneel ay vaaram mooy koo xam ne moo ëpp lu mu wax wàcc ko lekkat ko loolu mooy vaar vaar mooy ko wàccu ay wax ba pare la nga wàccu nga lekkat ko dañ leen waxante dëgg kun yéen journaliste Sénégal yi am leen jom am leen fulla ak fayra yéen journaliste Sénégal yi tey su leen Sénégalais yëpp weddee cause de Sonko moo tax su leen Sénégalais yëpp wanee ginnaaw moom moo tax parce que daf leen doyedil daf leen ñàkkal fayda daf leen def nit yoo xam ne ni tey tekkiwu leen dara ci askan wi parce que su amee li mu bëgg a wax am lu mu bëgg day dem ba fa waxu fa tay su su ba am ak ñak fayda gum leen bëgg won yeen lay jakkalo di leen koy wan ku na ngeen wara am fulla def leen sen seen bop ñeppal leen manki de respect jamono yeen journaliste yi parce que amu leen fulla amu leen fayda da ngeen ñak fayda yeen journaliste Sénégal point de presse am lay def wax lu ko neex tëj vidéo dem yonam su bëggee wax soxlaam tay xool télé tubaab bi duñ ko dëjee dañ koo dëj sëqatoo ko di ko laaj ay question muy tontu. te chaque jour mu jàkkaarloog yéen naan leen gëwma tubaab yi tubaab yi dañ France dégage dañ fee war a jugee ko nangam ak nangam kërëng dëng dalal nañ fi aji saar aji saar lu tax dalal ko parce que tubaab yi nangam ak nangam waa ñoo nekk ci ginnaaw complot bi taa waa dalal nañ aji saar léegi dalal nañ Ousmane Sonko léegi dalal nañ ko te wax na ah wax naa leen ba sonn na leen Ousmane Sonko fenkat la ku dàq a fen ci Sénégal mooy Ousmane sonk wax naa leen ko ba sonn nee naa leen du nit kuy wax dëgg lépp lu mu wax tey suba mun na ci génnaat ba set wecc te li ma leen wax ni bind leen téere yàgg naa leen ko di wax ëllëg da ngeen ko liir te samay wax day guddee rek mais du fanaan mukk lépp lu ma leen wax ci usmaan Sonko yéen ngi ciy teg seen bët barke alxuraani karim lu leer laa leen di tegal du nit ku baax fenkat la tubaab yi muy wax nii barke rasulullahi day sóob moom tubaab yi la gën a gëm yéen. tubaab yi la gën a gëm ni yéen yéen ñiy wax ak moom tubaab yi la moo moom tubaab yi leen ko moo leen gëna moo ko gënal waaw ñun nag kuy wàccu di lekkaat kooku ñun amuñu taxaw sax di parler ci moom lu bari damay ñëw ci étudiant wu Ziguinchor yi ginnaaw ba coow li amee étudiants yi nga xam ne dañ doon réclamer seen droit ak seen ak ak seen yelleef parce que mooy li nga xam ne mooy seen logement yu nekk ndakaaru ñi laan leen ko fayal chaque weer bu dee muy nongo yi nga xam ne dañuy sàkku xam-xam pour ëllëg ñu mën a jëriñ seen réew gannaaw bañ defee manifestation ba pare Ousmane Sonko dafa génn def nee na tontu boo xam ne tontu na ko étudiants yi waaye dafa fenal étudiants yi ba pare sosol leen dafa am lu ma ci bëgg a leeral parce que moom Ousmane Sonko lam wax lam wax ne. moom la étudiants yi def la mu wax ne moom la ñuy étudiants yi di xeex ak li étudiants yi di xeex sax nekkul benn nee na étudiants yi dañuy sàkku pour mu jox leen cinq millions jox leen xaalis déedéet étudiants yi seen logement la ñuy sàkku ku leen ko continuer di fayal étudiants yi li ñuy xeex lu leer ci bopp sénégalais yi la étudiants yi soxlawuñ sa dërëm Ousmane Sonko parce que yow Samba alaar nga étudiants yi ñoo la xeexal rayante ba nga falu nga jël trente millions may ko dof jël ay xaalis di ko séddale sa dajalekat yi di dajaleel ay kan ay Ndeye Khady Ndiaye di dajaleel ay capitaine Touré di dajaleel ku nekk étudiants yi nga xam ne tey ñoo la ëppal njëriñ parce que étudiants yooyu noonu lañ mën a jëriñ réew mi ëllëg yow mënoo ko jëriñ dëkk ba parce que xamoo lan la ñuy doon ëllëg ñii mën nañoo nekk ay président ñi war a mën a nekk ay nit yu baax ëllëg ñii lu nekk ñooñ mën nañ ko doon ngay jël ay rappeurs yoo xam ne xaw ay nit lañ xaw ay dof lañ nga leen di dajaleel trente millions jox leen ko jëlaat xaalis di ko may ay ndey Khady Ndiaye tey Ndeye Khady Ndiaye su nekkee millionnaire yéen a ko ko def étudiants yi taxaw di réclamer cinq million pour seen logement parce que seen waajur yi ñoo amul doole te étudiants yooyu ñoo rayante biir Ziguinchor ba teg la ci mairie bi nga taxaw di leen fenal naan dafa am ñu nekk seen ginnaaw nangam ak nangam kenn nekkul seen ginnaaw étudiants yi wax nañ lu leer politique wuñ lu wuñ waaw. am na nag ñaari étudiant bu góor ak bu jigéen yu génn waa Pastef fay leen xaalis ñuy yàq deru yeneen étudiants yi di joxe confirmation ne dafa am ñu nekk seen ginnaaw ñooñu noonu man jot naa seen information lu jiitu ñuy génn di def vidéo mooy ku jigéen kee ku góor gi ñaar ñooñu ay élément wu Ousmane Sonko lañ te dem leen seen dugal naa seen vidéo yi partagé ko ñaari étudiants yooyu bépp marche bu Ousmane Sonko mos a def ñu ngi ci biir marche bi. waaw ñom dañuy publier sax moy yéré bobu gaay di sol brokoma dañ koy def publier moy étudiant yoy ay étudiant wu sonko lañ moy ñaari étudiant bu jigen bi ak bu goor bi té ñu génn def ben conférence de presse di jéem a tuumaal yeneen étudiants yi Ousmane Sonko len fay wa passif ñoo len jox xaaliss pour ñu def lolu parce que nak gis nga so nekké étudiant ànd ak say nawlé ànd ak say mbokk da nga wara goré lepp lu ngeen di xex ngeen ànd xeexu ci dëgg ak ci ngor bul jéem a trahir bul jéem a wor buñ la jéem a jënd ngay génn ci suuf di jéem a yàq combat ñi nga xam ne nii tey ñu ngi doon xeex parce que ñoom ñi loon xeex seen logement yooyu logement yooyu bés bu sottee njëriñu yéen ñëpp étudiants yi la parce que seen grand frère yi nga xam ne ñoo fa jiitu woon ñoom daan nañ xeex loolu yéen ngeen ñëw di ko xeex ñii tamit dañ ko war a xeex ngir seen rakk yu war a ñëw ëllëg parce que su ngeen ko xeexul tey ëlëk mën na leen indil ay jafe-jafe yu maga maga maga mag ci seen njàng gàllankoor seen dem kun traître baaxul gis na Ousmane Sonko mi leen di gëmloo yéen étudiant yi ñu fay di leen gëmloo pour ngeen yàq deru yeneen étudiant yi dama leen bëgg a xamal benn affaire Ousmane Sonko lépp lu mu fi mënti def loo waay da ko rëccu parce que du nit ku baax waaw du nit ku baax képp kum àndal nga jàpp ne sàmm na kóllëre ci ànd gi ngeen ànd bés dana ñëw dana la wor parce que Ousmane Sonko du nit ku baax workat la kon yow étudiant bi àndal ak say mbokk étudiant gëmal say mbokk étudiant jàppaleel say mbokk étudiant moo gën ñi lay fay xaalis ngay génn di yàq deru yeneen étudiants yi di gëmloo nit ñi nangam ak nangam ñun gëmuñu loolu ñun li étudiants yi di manifesté wu di laaj seen àq ak seen yelef ñun loolu lañ gëm te ñoom ñoo nekk ci dëgg te dégg naa tamit information président étudiant bi dañ ko agressé waa Pastef fi agressé nañ ko biir Ziguinchor defe naa photo yi partagé naa ko jam nañ ko gaañ nañ ko tamit fii ci r bi mooy booy bi nga xam ne bañ demee ba ci buntu mairie bi moo jëloon kàddu mooy kil jëloon kaddu micro di wax mooy seen président étudiant yi agressé nañ ko biir Ziguinchor te ñu ko def mooy ñi ànd ak Ousmane Sonko. ñoko ko agressé mooy wëyu yi band yi ku wax ñi dal sa kaw gis na nak ñu ñuy weddi ñom ñuy weddi ñom seen biir am ñuy amna ci ñuy weddi naan waaw xamu leen ku ko agressé du wa Ousmane Sonko nit duñ ko agressé rek ñu ne xam nga ñom dañuy def lu na weng ba pare taxaw di victimiser wu dañuy togn ba pare ko di victimiser wu yéen lépp luñ leen jiiñ yeen ko def parce que Olof Njaay nee na yow ak sa waa ji mun nañ am compréhension na yow ak sa waa ji la mais yow ak gaay nañ la wax dëgg na yow yaay tooñkat bi am ngeen fi problème ak Pape Djibril Fall mu ñëw si manifestation ngeen songu ko dem ngeen fi cikki songu fa ay nit am ngeen fi problème ak ak waa duut kay songu leen xam nga chaque jour yéenay jug di songu ay sénégalais chaque jour yéenay attaqué ay nit di dal seen kaw ba paré ngeen bëgg ñun ñi taxaw di leen défendre wala di leen sétal ci loolu loolu mënul nekk bayi leen attaque yi ngeen di def bayi leen ku wax ngeen dal ci kawam bayi leen ku wax ngeen saaga ko nday bayi leen ku wax ngeen manki de ko respect loolu seen jikko la te yéen koy def boy bi nag ñu ngi koy masso mooy président étudiant parce que li ngay def xare la jihad la bu ci tiit bu ci dellu gina agressé nañ la liñ ci jublu mooy pour nga noppi luñ ci jublu mooy bul waxati te maa ngi lay wax benn mbir jugal nga def vidéo porte jël plainte deug na sax porte na plainte contre is pour su jappé ñu ko waaw portal plainte nga def vidéo nga déclarer li gis nga lu bon bu ko kenn nëbbu bu bu la kenn ñaan ba nga lu bon man bëgg malaikai wah lay kay wax yow président étudiant yi parce que for nañ ci wewu beuy na bañ la agresser ba légui ñom dafa am ñuy dox ci souf pour na la bul def vidéo bàyyil mu sedd ak affaire yooyu garaawul jaru nga ciy wax ci kaw ak affaire yooyu gis nga lu bon lu bon su dalee sa kaw nga nëpp nëppal ko bés dana ñëw dana dal ci kaw ñëpp te boobaa yow yaa ko yóbbee ñëpp parce que taxawoo woon dëggal sa bopp pour leeral lu bon li nga xam ne dal na sa kaw pour ñeneen ñi mën a jël seen matuwaay kun sa waay génnal nga def vidéo nga def déclaration wane na dañ la agressé parce que gis nañ photo yi gis gis nañ lépp jot nañ ci information yu leer nañ ñi kon génnal nga dëggal sa bopp pour wax ne gars yi xam ne dañ la agressé lu ñuy nëpp nëppal amu fi lu bon nañ ko xeex mu jeex nañ xeex lu bon mu jeex ñun sénégalais yi nag dañoo mën a seetaan ñun sénégalais yi dañoo nekk ay nit yoo xam ne chaque jour mbir day am ku ci nekk di ko uddi ko layal mbir mi bés bu këppoo ci suñu kaw ñun ñëpp ñun ñëpp ku ci nekk téye sa gémmiñ di ko jiiñ sa moroom bala ñoo yegg fofu nak nañ ko fessel leeral ko parce que lu bon kenn du ko neub lu bon dañ koy feñal gom suñ ko suñ ko xosu du wër mukk du safaro man maa la wax li kun yow étudiant bi feñal sa bop taxawal nga deggal sa bop ñi ni lañ mel discours Ousmane Sonko bi degg nga ko xamna naa ne loolu taksa gën tax sax ñi dal sa kaw waaw nee na bu ngeen yeggé ci maire bi ay nitam dañu waxna ko ci discours bi deg ngeen ko parce que neena yorna yor na ay nit yo xamne mën na leen génnee jàkkaarloog yéen waaye du ko def nangam ak nangam mo ngi leen di jema menace kun gën leen ngeen deugal sen bop li moy li nga xamne ni dama koy wax ci étudiants yi yi waaw guerre nak day saf mondial bi nga sa ak ak sa yelef kenn du lako ko jëlal di lako ko neexal di lako ko jox ya ko meuna xexal sa bop ba jot ci Ousmane Sonko dictateur bi mu leen bëgg a imposer biir Ziguinchor dictateur bi mu leen bëgg indil bu leen ko nangu mukk ci àdduna commerçant yi commerçant yu Ziguinchor yi laa wax commerçant yi dégg na pere woon ngeen pour def manifestation lan moo tax ngeen bëggoon a def manifestation ak lan moo leen ci génne information yëpp jot naa ci waaw information yëpp jot naa ci commerçant yu soor yi tere nañ pour def manifestation lu tax defuñ manifestation bi xam naa lu leen ci génnee commerçant yi Ousmane Sonko dafa ñëw tegal leen lu gën a metti lañ doon dund maire bi maire Ziguinchor bi Ousmane Sonko dafa ñëw tegal commerçant wu Ziguinchor lu gën a metti lañ doon dund léegi commerçant yi nag dañ bëggoon def manifestation pour naqarlu loolu pour ñu dindiko, ko léegi nag ñu jaar ci suuf pour ñaan leen pour am lañ leen dig pour ñu bàyyi mu sedd parce que ñaari manifestation yi su takkarnaase ci kaw Ousmane Sonko biir Ziguinchor dana am lu mu wàññi ci moom waaye nag gis ngeen commerçant yi billaahi xeex leen jug leen ngeen dénoncé ko gis ngeen gis ngeen li leen gis ngeen su ngeen nekkee fii di nëpp nëppal ay mbir ay ñi leen di jaar ci suuf di leen neexal naa leen bàyyi leen mu sedd yooyu ngeen di nëpp nëppal ay mbir bis dana ñëw mbir mi dana këpp ci yéen taman maa leen ko wax lii tey man bëgg bàyyi génn leen ngeen def manifestation yuuxu leen Sénégal yi dégg leen parce que moom dafa fi nekkoon moom Ousmane Sonko daf fi nekkoon di wax ne dafa mën daf fi nekkoon di wax na moo gën a ay ñi fi nekkoon bañ jox ko kun su ayul da ngeen war a génn xamal ko ne ko aayoo mënoo parce que def nga ñu lu gën a metti ki fi nekkoon defuñu ko il faut ngeen génn fësal mbir yi naa fekk baaxul naa féq day delloo réew ginnaaw parce que li lim leen waxoon diggoon leen ko defu ko da ngeen génn xamal nit ñi ne lim ñi diggoon def ko loolu mooy nekk Ousmane Sonko mënta jiite ab quartier li ma leen waxoon waxati leen ko waxaat leen ko mënta mairie Ziguinchor Ousmane Sonko mënta jiite Ziguinchor waxuma la ak Sénégal nag Sénégal moom dañ koo waxee dañ koo tegee na mais mais Ziguinchor googu barke rasulaay day sonal boppam mais problème dana juddu ci diggante moom ak Casaase yi te nañ leen dem ba ci kanam samay wax nag bind leen téere ngeen denc bés dana ñëw da ngeen ko tari Ousmane Sonko dana am problème bu rëy ak waa Ziguinchor te man maa la wax lii te bind leen ngeen denc parce que xam naa population Ziguinchor xam naa Ousmane Sonko seen réalité àndul xamante wuñ déggante ñaari population bi ak mairie bi. dañoo déggoowul déggante wuñ waaw li ma leen wax lu leer la gars damay ñëw ci ahmed khalifa mam ahmed khalifa ñas muy doomu maam alaaji abdoulaye ñas di doomi maam khalifa ñas asafurla mam. alaaji abdoulaye ñas mooy maamam di doomu maam xalifa Mam ah, maam khalifa di mag ci Baye Niass moom mooy taawu maam El Hadj ñas Niass magee na Baye Niass ñaar fukki at ak benn ci li ñu wax mooy papaay Sidi Lamine ñas mooy papaay Ahmed Khalifa Niass waaw si Ahmed Khalifa Niass moomu Baye Mbaye MC kenn werante wu leen na jamono ji ci ginnaaw dafa defaroon ay ojo monté ko jël seize personnes dugal ci boolewaale ci Ahmed Khalifa Niass na ñoom ñoo njaaloo ak aji Sarr maanaam dafa jël njaaloo moom moom moom Baye Mbaye MC jiiñ ko Ahmed xalifa Niass Ahmed xalifa Niass nag génn na euh, def ci benn tontu benn vidéo am lu mu wax Baye Mbaye MC waaye chaque jour rek <coughs> ñun taalibe Baye dañuy continuer di am lu ñu naqari dañuy continuer di am lu ñu metti dañuy continuer di am gàcc ndax MC moo teg bépp taalibe Baye fu mu mënti nekk moo la teg gàcc parce que Ousmane Sonko. mom mom MC su ko gënalee melam Ousmane Sonko su ko gënalee baayam bi nga xamné moy mooy Baye Niass Ousmane Sonko su ko gëmalee yonentu yàlla Mohamed Ousmane Sonko su ko gëmal gënalé cheikhou tidiane Ousmane Sonko su ko gënalee maamam maam Ousmane Sonko su ko magam di Ahmed Khalifa Niass ñun dañuy am gatch am luñu rus barke alcorane karim parce que so mëné xoolatoo yalla yow bay Mbaye MC ci li ngay def xoolatoo Seexu Tijaan xoolatoo Baay Ñas xoolatoo ci say mag xoolatoo ci say rakk xoolatoo ci kenn koo xam ne bokkoon na ci famille Cheikh Ibrahima Niass bi xoolatoo ci ñoo ñëpp ngay man di dem di monter ay audio di jël seize personnes di jël ñi nga xam ne nii ay kilifa lañ ay taalibe topp seen ginnaaw nga leen di tuumal ab njaaloo lu metti la nag lu naqadi Ahmed Khalifa Niass la lu di njabootu Ahmed Khalifa Niass la waaye lu la may sens yow Baye Mbaye MC moy li nga bokk ci famille Baye Niass luñ na Baye Niass sa baye loolu rek la la Ahmed Khalifa Niass di rousé motax sax mu tontu ci tontu bu ndaw bobu jàll waye ku deglu Ahmed Khalifa Niass muy wax da ngay xamne amna lu ko naqadi ci Baye Mbaye MC parce que Ahmed Khalifa Niass nit yag na koo nit yag na koo nit yag na wax lu nekk mosu ci tontu du deglu deglu wul len waye so gisee yow bay Mbaye MC li nga def metti Ahmed Khalifa pas parce que fa nga bokku la ta bay Niass moko wow yar semua Ahmed Khalifa yau waaw yau yau moko yar waaw yow yow yow yow bay MC nga tourner di jël njaaloo njaaloo bay MC jangan nga bay Mbaye MC est-ce que jàng nga xam nga njaaloo bala nga ko jiiñ nit lu ci yalla wax bala nga monter ji ay audio defar ay audio aji sara jël audio ya tas ko na mu ngi ni waaw maa ko sere bàyyi kii Ahmed Khalifa Niass de moo loon njaaloo ak aji Sarr dafa ñaaw barke alxuraani këram lu ñaaw a ngi noonu Baye Mbaye MC xoolaatal aduna adduna du kër Baye Mbaye MC dellul ci daara ja nga jàngi Baye Mbaye MC demal nga tarbi yu xam yàlla li ngay def amul benn sens amul benn njëriñ Ahmed Khalifa Niass Loko kontur kontur, loko loo ko bañ bañ am na ko jël di tek ci deram bi yow su fekkon audio yi nga ne deug la fekke aji sar sax mo na la ahmed khalifa teud nak mom. yow bay Mbaye MC war nga ko laaj indil preuve war nga ko laaj indil preuve preuve yi wane ahmed khalifa ñoo teud na ak aji sar. waroon nga wax aji sar nako indil preuve lan moy preuve parce que bam jigné sonko viol de preuve moy viol ba ak test ADN ba moy meuniw ba aji sar digënté mok sonko bay mbay MC aji sar digënté mom ak sonko ak sonko yobbu na fa meuniw sonko tek ci table bi aji sar amna vidéo sonko kon aji sar amna preuve digënté mom ak sonko waye bam la waxé na la nga mom yow ci li nga wax nga aji sar mo na la ahmed khalifa teddé nako bukan teddé nako diw dang ko warona laaj ana preuve ana preuve nga ko waron laaj bay mbay am ci jang nga li yalla wax ci viol li yalla wax ci njaalo bal nga ko jiñ nit sédé yi la yalla wax jang nga alquran ki bay mbay am ci cede yi cede yi bal nga ko tumal nit batu cede yi li ngeen di def ni day yakal Ousmane Sonko mais duko defaral barke alquran kerim tay lew na sen ñu ëpp ci walew na ñasen genn nañ ba set wécc ci Ousmane Sonko barke alcorane kërëm ngir jëf ju ñaaw ji ngeen di jël diko tek ci doomu mam Khalifa ñass lew na ñasen tay ko fa wax Ousmane Sonko mu saga ndayam ñepp ko ba parce que nak waa lew na ñasen amuñ ku dul Ahmed Khalifa ñass waw talibé Ahmed Khalifa talibé Mam talibé Mam Khalifa ñass yi amuñ ku dul Ahmed Khalifa Niass loko manti wax wax amna lo xamne nak so fa yegge ak Ahmed Khalifa Nias ñom dañuy té seen bop nga xamne parce que erreur wessu li du gëna reey li li da ngeen koy yakal mais utalu leen ko ay client barke alquran karim da ngeen di yakal Ousmane Sonko mais utalu leen ko ay client tay lew na ñasse ñepp genn ci Ousmane Sonko lew na ñasse ko fa wax mu na doyna Ousmane Sonko doyna ñoñu baxuñu duñ ay nit ñu bax danga bëgg réew di ànd ak ay nit yoo xam ne dañuy def ay jëf ju ñaaw joo xam ne di ko teg ci kaw ay gor di ko teg ci kaw ay nit ñu baax ñoo xam ne baax seen deret ci mbaax lañ leen mos a xamee depuis seen maam yi ba léegi. dañ leen waxante dëgg te yàlla tax dëgg moo fi nekk kon Ahmed xalifa suñu sëriñ suñu papa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. sa kàddu yi rafetlu nañ ko partagé nañ ko yegg na fa mu war a yegg wax nga waxi kilifa wax nga wax ju baax jëmale ko ci moom Baye Mbaye MC dépassé woo ko benn yoon ci kàddu yi wax nga ko ba xamal ko na ko demal nga dellu ci gi ji Baye Niass parce que doomu Baye Niass laa rek dooy na tiitar dellu ci daara ji wax nga ko ba xamal ko na ko su fekkee xaalis bi nga xam ne moom lañ lay fay pour nga yàq sama der pour nga yàq deru ay nit ñëwal ma jox la six cent millions nga taggal ma Baye Niass parce que moom al Ahmed Khalifa ñu ne ne kayitu suukar sax su ko bindee banque bu mu ko présenté lu mu bëgg ci xaalis ñu jox parce que Ahmed xalifa dafa regg démb tey soog a ñëw <laughs> waaw li ngay uti ci Ousmane Sonko Baye Mbaye MC xaalis boobu ngay uti ci Ousmane Sonko ay vingt cinq millions yi ñu lay jox avance ak yooyu soo ñëwoon di sa soxla Ahmed Khalifa Niass mu fajal la ko man loolu leer na ma soo ñëwoon ci Ahmed Khalifa Niass barke alxuraani karim dafa regg démb tey soo a ñëw Ahmed Khalifa Niass mu ngi teral ay buur di teral ay baa doolo di teral ay nit yoo xam ne kenn xamul leen ci àdduna di yëkkati ay famille yoo xam ne kenn mosul leen xam ci àdduna Ahmed Khalifa Niass mu ngi leen di teral kun yow yow yow Baye Mbaye MC yow mi nga xam ne doomu Baye Niass nga te Baye Niass moo yar Ahmed Khalifa Niass soo sukkoon ci roonam na ko vingt cinq millions laa laa soxla du fi du yendu te Ahmed Khalifa tegu ko sa loxo parce que man gëm na né Ahmed Khalifa ñass lepp lu doomu Baye ñass soxla suko amé suko déggé da na ko fajj da na ko def ku ñew Ahmed yow yow Baye Mbaye MC jëf ju ñaaw ji ak wax ju ñaaw ji waroon ko yëkëti diko tek ci sa mag ki nga xamné sa mag la waro wona jël wax ju ñaaw diko yëkëti diko tek ci deram bi lu toll ni njaaroo ñëwal nga taggal ko Baye mu may la million millions mu mu jox la six cent millions Ahmed Khalifa moo wax loolu barke Rasulaay Ahmed Khalifa mën nga ko attaqué ci politique d'accord nañ loolu garaawul man mii man mii léeg dama koy attaqué ci politique day wax loo xam ne ànduma ci ma taakale ko loolu garaawul léeg day wax loo xam ne sax ci diine man bëgg Baye ànduma ci ma taakale ko mais Ahmed Khalifa Baye mbay MC li nga ko jiiñ loolu soo ko jégguluwul barke alxuraani këram yow ma la da nga taxaw layoo ko ak moom parce que lu gën a ñaaw nga ko jiiñ koo xam ne yëgut tinut fekkewul yoonam nekkul ci aji saar nga jël aji saar di ko tuumal naan moom moo njaaloog moom te dégg naa liste bi seen liste boobu dégg naa beneen kilifa diine ci man nag duma ma profité di ko wax dégg naa kilifa diine boobu noonu nag maa ngi leen di jox information boobu seen liste bi liste boobu noonu ñuy wax naan ñii ñoo tëddee aji saar dégg naa am na audio buñ defar boo xam ne beneen kilifa diine boo xam ne ci senegal kilifa diine bu mag nag nee nañ tëddee na aji saara gis nga boobu bés bu génnee barke rasulullah bay mbay am si loolu dana métti ci yow loolu moom man maa la koy xamal waaw ñu ngi koy rumbandaat ci suuf nag di ko lem lem mais loolu bis bu génnee bis bu génnee kilifa diine boobu may dégg na moom ngeen ci tuumal ci ay ujo tudd ko ci kooku moom bis bu génnee barke alxuraani kërim senegal dana yëngu te boobaa Ahmed te booba soo dof daloo guerre civile dana am ci réew mi man maa leen wax lii. xam nga Ahmed xalifa moom moom mun na muñ moom garaawul ay taalibeem tamit mun na nañoo muñ garaawul mais gis nga kilifa diine bi ma dégg ne ci am na audio buy waaj a génn te kilifa diine boobu noonu nee nañ Baye Mbaye MC yi mu joxe kooku ci la bokk loolu bis bu tasaarooyee Lulu bes bu tassé barke rasulullah bay bay MC dootoo Senegal mo xamna naa dootoo fi tok mom xamna mom da ngay mujj genn dekk bi waaw parce que duggu nga ci problème bo xamna yo bay bay MC xamootoo sax lan mo la ci meuna genné kan xamoo bay bay MC da nga xamul wa passif billahi xamoo len yow da nga dem ba mbir mi dana la mujj dépasser xam nga audio yaangi ngi ben par ben ñi nan yépp bay mbay koy genné bay mbay koy genné ñom ñi ngi créer di genné xaw ma ya koy génneem déet parce que ñom ñi ngi créer di genné mais gis nga bes buñ fi kéré <laughs> allahu akbar yalla nañu yalla jappalé yalla na yalla jappalé sénégal mais gis nga serigne bu ndaw bu ci muytu wa passif yi barké yonuntu yalla mohammed da nga mat sa baram wiccax ta da nga méré kula deful dara bay bay mc kilifa diiné bima dégg ñi ne ci ñu tëddé aji sar ci la bok kaddu gogu bes bu juggé bis bu ojo boobu na pëf réew mi dana yëngatu te maa leen wax lii réew mi dana yëngatu état bu Sénégal nag laay wax mu ngi seetaan luy raam jëm ci ñag bi parce que état tamit daf ci am responsabilité parce que état bi dafa faible état bu senegal daf état bu faible la. parce que am na ci lu bari loo xam ne mu ngi ciy teg bëtam di ko dégg dëgg ci tànkam bàyyi muy jàll. te barke rasulullah bis bu réew mi yëngatoo ci lii nii manipulation yi waa Pastef di def nii état loolu sa responsable la ci parce que ñoom ñi ngi continuer di def ngeen ne teg bàyyi leen parce que mbay Mbaye MC lii mu def nii kaso la ko waroon fekk mais yéen a ngi bàyyi mu ngi déroulé Baara Ndiaye kaso la ko waroon a fekk ñoom ñëpp ci kaso gi lañ leen waroon a noq parce soo ko deful tey ëllëg lu gën a garaaw loolu dana fi juddu te su fi juddoo boobaa pertement wu ñëpp lay nekk kon luy raam ci ñag ba la jëm kon état bu senegal calcul yi ngay def arrêté ko nguur yàllaa ko yor te nguur yàllaa koy joxe te nguur yàllaa ko tée calcul ak ay calcul ak sama nguur laay bañ mu daanook motax ma leni bàyyi ñi def lu leen neex ak ay sama nguur gi lay bañ mu nangam ak nangam nguur da ngay jël sa responsabilité la nga wara def nga def ko nguur gi su waré jeex fa la ko yalla di yemale su warta jeex kenn mënu ci dara kon état bu sénégal loolu la leen di jox gis nga cotisation yi ñi def ni naan ay Ousmane Sonko lañu cotiser ay 60 millions ay 100 millions ay loolu amul ci benn réew ci aduna bi bu do fi fudul Sénégal amul benn réew ay xaaliss yu ñuy partager muy muy jaar ci réseaux sociaux yi di jaar fu nekk di duggee nu ko neex xaalis bi di duggee nu ko neex senegal sans contrôle kenn xamul xaalis bi fu muy jóge ko état na ci teg waxu ci dara loolu fan la am ah dañ leen waxante dëgg xaalisu dajale yi ñuy def ah xaalis yooyu dafa am lu nekk ci ginnaawam dafa am lu nekk ci ginnaaw xaalis yi te état xam na ko mais état bi ci jëmmi boobam état bu Macky Sall ngir yàlla war wa li jëlal say responsabilité ci réew bi réew mi dafa am ñu fi nekk ñoo xam ne seen yoon nekkul ci politique seen yoon nekkul ci wàllum politique politiciens yi nag duñ jël réew mi bëgg a xañ ñooñu seen dund bëgg a xañ ñooñu seen àq ak seen yëlef ci réew mi état ñu dénk réew mi nga taxaw di seetaan Ousmane Sonko ak ay ñoñam ñii ñiy leen lépp lu leen neex ñu koy def ci réew mi te képp ku ci teg bët xam nga ne lii loi daf ko condamné ñoom ñu koy def muy jàll. Wow, chaque jour nga gis suñuy tasaare ay xaalis ay 100 millions 200 millions 60 millions 80 millions nit ñi di ko gis nii muy tasaaroo fu nekk te duñ ci dégg benn résultat boo xam état xool def na ci ay état def na ci bi non lay duggee xam ngeen xaalis yooyu moom mooy waral ñuy financé booy yi ñuy jënd ay essence ak lu nekk di taal dëkk bi xaalis yooyu noonu ci la di jël di am ay moyen di am ay déplacement di bëgg atake attaqué comme xaalis yooyu moom la ñuy jox booy def ay live di influencer nit ñi pour ñuy génn ci mbedd mi di xeex ah état bàyyi lépp di dérouler non vraiment nag neexul ba neexul mais suñu état bi dafa faible quoi wax dëgg yàlla man dama am lu may naqari quoi su ma gisee yenn yi di am te dara du xew te dara du xew lu may naqadi la fi may daanalee nag mooy dama bëgg wax ci. deuxième mandat au Macky Sall bi deuxième quinquennat bi ñi ngi naan da koy def ñi naan defuko mais ñin la influenceur ñin mouvement suñu réew kenn duko ko taal ñin activiste yi Macky Sall day def deuxième mandat ak du def deuxième quinquennat troisième mandat ñin de wax deug yalla xamaguñ ci dara waaw parce que père ñom ñoo dajaloo di def seen i yëfi bopp ñin bolé ñi ci waye nak man bëgg bàyyi ak ñin influenceurs yi. suñ sañoon président Macky Sall mooy nekk suñu candidat deux mille vingt quatre parce que président Macky Sall ñun gisuñ ko mën a remplacer jamono ji fii ci Sénégal te réew mi bëgguñ mu tegu ci loxo Ousmane Sonko yàgg nañ ci di xeex te booba léegi ñu ngi ci ñu ngi ciy xeex kenn faale wuñu kenn lijjanti wuñu kenn déglu wuñu léegi nag ñin les influenceurs ñin mouvement suñu réew kenn du ko taal ñoo ngi déglu suñ demee nag ba am yaakaar ne président Macky Sall. du def deuxième quinquennat mais dara du leer suñu nopp yi tamit ñun danañ fexe ut suñu candidat bo xamné ne danañ ko fexé sampu pour 2024 pour ñi jëma Ousmane Sonko bu mu jël réew mi waaw. parce que président Macky Sall su fekkee dafa bëgg baay Ousmane Sonko déroulé jël réew mi ñun ñun duñ ko nangu ñun population Sénégal waaw su fekkee pouvoir bi dañu bëgg a xalal Ousmane Sonko bu jël réew mi ñun duñ ko nangu jaral nañu ñun ñu outil suñu candidat parce que ñun yag nañ ci combat bi di xex waaw amul lenn lu leer luñ ci xam te ñoom ñin li ñuy wax dañoo jàpp ne lu ñu xeeb la bu leen xeeb li ñuy defle lii ñuy wax ni bu leen ko xeeb ñin ay junne junne nit lañ nekk ci biir réseaux sociaux yi di xeex benn affaire boo xam ne dafa war a lor Sénégal dafa war a lor suñu réew kun président Macky Sall ñin su fekkee amuñ ci lu leer ndax day présenté wala du présenté wu parce que nii lañ koy déggee rek ci ñëpp di dégg nii rek ñun danañ ut suñu candidat bopp boo xam ne jàkkaarloog Ousmane Sonko pour samp ko pour Ousmane Sonko bu mu jël réew mi parce que lii nag day nirool Ousmane Sonko lañ bëgg a jox réew dafa loolu lay nirool dafay nirool ne Ousmane Sonko dafa mel ni moom lañ bëgg a ubbil porte yi mu dugg jël réew mi parce que ñun xamaguñ fu ñuy dëgg suñu tànk su ñun suñu leeroon na président Macky Sall day day day poser mu leer ñu lañ mun nañ sóobu ci xeex bi engagement bu am doole pour combat guddeeg bëccëg suba ngoon pour dugg ci sénégalais yi xeex pour président Macky Sall continuer yor réew mi mais suñ fi nekkee deux mille vingt quatre léegi mu ñëw yàggatul manipulation yaa ngi ne xocc ci dëkk bi sénégalais yi xamatuñ fi ñuy dëgg seen tànk mënuñ ñoo wax lu leer ah ñun activistes yuy def live mënuñoo jàpp ci lu dëgër carrément. na ndax président Macky Sall day def deuxième quinquennat wala du ko def ñun mënaguñoo jàpp ci lu dëgër këcc parce que amuñ benn information bu dëgër bu ñuy xamal ne président Macky Sall day def deuxième man quinquennat bi amuñ ko dëgg rek moo neex yàlla dañuy wax ngir suñu mbëggeel pour mu continuer ñun dañ koy ñaan mu continuer te barke alxuraani karim président Macky Sall su paree pour continuer ñun pere nañ pour jàppale ko waaw fëgg nañ bunt ministre bu nekk pour laaj leen. mais kenn nangu ñoo sax déglu contacté nañ ku ñu ne ku nekk pour laaj leen mais nangu ñoo déglu léegi nag comme nangu leen ñu déglu ñun ku nangu leen ñu ubbil seen bunt yi nangu leen ñu wax lu leer danañ continuer nag di déglu mais suñu demee ba amatuñ luñ leer danañ jéem ut suñu candidat bu baax pour deux mille vingt quatre Ousmane Sonko moom tout sauf Sonko réew mi tout sëf Sonko duñ seetaan muy tegu ci loxo ay ñoo xam ne dañuy taal suñu réew duñ ko seetaan. te barke rasulullah dañuy continuer di ko xeex te danañ continuer di ko combat suñu leeree ne président Macky Sall du du poser candidat nañ ñu teel a wax nañ ñu teel leeralal waaw nañ ñu teel a leeral ñun dañoo bëgg a xam lu dëgër mën a affronter ak ñoom maa ngi leen di bëggee nag bu baax a baax a baax di leen jaajëfal gars yi euh, maa ngi Kaolack nag waaw maa ngi Kaolack temps yi xam nga waaw mais gars yi dana ñëwaat ak yeen ci benen live na ñëwaat ak yeen ci benen live suba inshallah euh ah, ci Kaolack Serigne Mbuub waaw xam nga Kaolack mom mënuñ fay dugg ba genn te duñu waxtaan ci ah, maire bi <laughs> comme lima la no wax rek parce que dama ñëw dégg lu bari mais bàyyi leen rek à chiffre ba suba inshallah dana ñëw waxtaan ak yeen ci meeru Kaolack bi waaw parce que amna lu bari luñ fi wara waxtaan ci lu jëm ci sëriñ mbuub <laughs> mi fi ne incha allah gaay jaa ngeen jëf bëgg baay bañkat la làmmiñu askan wi wan loof incha allah duma